aouzubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim aouzubillah bisimilah inna wali yàlla gannaaw ba nu sante buur bi subhanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd bi salallaahu alayhi wa di sant sunu yaakaar tey ak ëllëg cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul di ñaanal sëriñ Muntaxa Basir sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba lépp lu mu naanal lislaam sunu borom kàttanal ko ba lu mu ci yéene rek kàttan gi ëpp ko ci barke bu tedd ki noonu la ñuy jàllee Baxdaad nag ziar sunu bunt di Serigne loo Lo Gaydel borom daam ibnu Serigne Moustapha Lo mu Serigne Modou Lo Isa di ko ñaanal moom it sunu borom yokk kattanam bu wér ba lépp lu mu na ma liggéeyal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul lépp lu mu naan rek lépp lu mu ci yéen rek ñu ngi ñaan kattan gi ëpp ko te bu gëstoo gis ñu ci ginnaawam. de bu ñu ko siyaar rek daanaka dañuy siyaar waa Baxdaad gépp noonu la ñuy dem ba jàkkee murit ziar waa jàkka ji yëpp teg ko siyaar bi nag ci xalifa ba di Serigne Cheikh Touré sëriñ si Ahmadou Bamba Touré di xalifa sëriñ di ko ñaanal sunu borom yéen bi oyof lool sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak ko siyaaree siyaari njaboot gi dem ba kër maam El Hadj itam siyaar xalifa ba di ko ñaanal sunu borom dolli ko wér noonu la jàll rek dem ba jaxaaw di siyaar xarit sëriñ Baara Cissé mu El Hadj Nduga Cissé di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ziar ca wet ga nag sëriñ Cheikh Moussa Seye mu sëriñ Modou Bousso Dieng di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool ànd ak wér di siyaar sunu yi nekk jaxaaw waa groupe sopp nabi suñ ci jëlee sunu aadama rek nga xam topp jotaay ba saa su nekk rek dinañ ko jotal sunu yi nekk foofu yëpp nga xamante ni ñoo féete groupe sopp nabi noonu la ñuy ñëwee nag fii ci kër Cheikh Abdoulahi Al Yaqin ziyaar xalifa bi soxna Saybata Aydara di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér buñ ko siyaaree rek siyaar rakkam ji soxna ay dara di leen ñaanal tawfiix ak tey siir suñu boroom gën a wéral seen i cër noonu la ñuy jàlle nag dem ba kër sëñ Babacar Ngom ziar xalifa ba sëriñ Mbay Ngom di jàll ziar yi jëwrinam ba sëriñ Modou Ngom buñ siyaaree sëriñ moodu rek képp ku seex Modou Kara Mbacké noo leen njaboote rek daanaka da ngay dugg ci biir siyaar bi di siyaar sunu yaay nekk seex Abdoulaye Yàqin gépp ak sunu baay yi ak sunu maam yi ak sunu mag yi ak ñu fi nekkal ñëpp ñu ngi leen di siyaar tey nag ñoo ngi fii na ci kër seex Abdoulaye Yàqin seet si nag sunu mag sunu jëwrin xam naa ku ko gis dooni dooni dooni gulet di sëriñ xaadim Sarr ku am ay taxawaay ci ci quartier bi ku am ay taxawaay ci yoon bi xam naa entretien boobu dinañ ci ñëw lu bare baree baree bare te al ihsan tey fii leen ñëw ñu war koo dalal ci ci ko Cheikh Abdoulaye Al Yakhine di ziar nag directeur télé bi ñu ngi koy ziar sëriñ Mamadou sekk di ko ñaanal sunu borom gën a yokk ay taxawaayam di ziar bi sëriñ Xaadim Soumaré buñ ko ziar rek ñu ngi ziar ak acteurs yi nekk ci biir télé bi yëpp bu ñu tënkee ñaar ñooñu rek ñëpp day dugg ci biir di jaar suñu créma sunu caméraman maam alaaji tey nag ñoo ngi fii nag ci murit gi jàkkaarloog suñu mag suñu jëwrin sëriñ xaadim Sarr ñu bàyyi nga nuyu baxda onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonantam bu tedd bi waaye di sant Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul di santit suñu ñaari woyjur biñ ñu juree ci lislaam yaruñu ci yarub lislaam ba ñu ciy sant yàlla tey jii bu baax a baax di nuyoo comme ni nga ko waxee léegi rek xalifatul am di taraxatul muridiya di sëriñ Muntaxa Mbakke di ko ñaanal suñu borom yàggal ko ci suñu kanam ba naal yi mu naal yépp mu defee ko ni mu ko soobee noonu la ñuy jàllee di nuyu suñu sëriñu bopp di sëriñ Seex Waalo Mbakke Daaru Xuddoos ñu ngi koy nuyu di ko ziar baax di ko ñaanal mooy Mbakke Balla suñu borom yàggal ko suñu kanam di ziar it ki nga xam ni moom la ñu nekkal fii di soxna Saybata dara di xam di ko xam ni moom maa ko bëggal sama bopp ma sama xarit la sama sëriñ la sama xarit la euh, tey jii rek xëy naa dem ci moom waxtaan ak moom lu baree baree bari mu ñaanal ñu ah ñu koy delloo ñaan googu moom it suñu borom gën a guddal fanam di ziar bu baax it ne nga ko waxee léegi suñu jëwrin sëriñ Modou Ngom moom it di kenn ci man. nga xam ne ku ma xam xam nga sama diggante ak moom fu ma ko teg ci sama xol loolu yàlla laa koy seedeel moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom gën a guddal fanam waaye di ziar bu baax it jëmm jooju nga tudd léegi di sa wasila di sëriñ xaadim loo gaydel di kenn ci man moom it ndax ba ñuy am lante loolu yàgg na lool néeg bi ñu jàkkaar lool mus na ma fay fekk ànd ak benn sëriñ mbàkke mbàkke rakku sëriñ Modou Kara di ma woo pour ma jàngal leen am ngont mu ñu doon def fii ci xabru bi loolu yàgg na keroog bi mu ñëwee maa ngi naan ko sëñ bi man de damaa xaw a tawat mu ne ma jógal ma ñaanal la rek nga jóg jàngal ñu jàng yi booba dëkk bi demeegul nii wax dëgg yàlla ba ma ñaanalee it suñ borom dimbali ma ba ma dese kàttan bo ci booba donte ci siburu la ma fekk ma mën a jóg ànd ak ñoom jàngal leen cant googu loolu maa ngi koy fàttaliku sama diggante ak moom di ko ñaanal bu baax loo li muy liggéeyal Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba gën a jàppaleel boppam loolu ñu ngi ko koy ñaanal ak mbokk yi mu àndal ñëpp dafa fa ziar it suñu xaritu bopp di Serigne Abdoulaye Thiam ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax Serigne Asia it ñu ngi lay nuyoo di la ziar bu baax di la ñaanal di la xamal ni it yow lii ngay taxawu émission bii nga yor muy Al Ihsan lii rek nga war a yor ndax émission yëpp a baax yëpp a neex mais ihsaan mooy rafetal te nit mënul def ci àdduna dara te rafetalul te rafetalul kon yow émission bi nga yor cër la boo xam ni mën naa ni sa maam Babacar Ngom moo ko teg ci say loxo yal na yàlla barkeel ko jërëjëf Ngom. jërëjëf sëñ Xaadim ku dégg nuyooyu tedd yooyu ak xam naa dina ñëw tuuti sax ci biir ihsaan ci biir waxtaan wi ni mu indee ay kàddoom ak yooyu noonu léegi sëñ Xaadim ku bëggoon a xam dëgg-dëgg sëñ Xaadim Sarr waaw Xaadim Sarr Ah, jafe naa xam tuuti yomb naa xam tuuti ndax man yàlla dogal na Dakar laa juddoo sama wayjur indi ma fii bi ma indee fii bi ma feree mu yóbbu ma daara caareen saar ma jàng fa alxuraan ba am fa fukki at ba am fukki at mu indi ma fii yóbbu ma Kër moo Ndiaye ma fay jàng alxuraan bi ma ñëwaatee fii mu indiwaat ma fii it mu dégg ca booba jamono ni sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma dafa am benn école arabe bu nekk fii Thiès te moom comme léppam sëriñ seex la mu ni sama doom daal ndax dëgg yàlla dina diis ci man muy nekk ci benn école di fa ja sàkku xam-xam te école sëriñ seex nekk fi ci li ma indee fii cees dugal ma ci école sëriñ seex Mbacke Gaynde Fatma ma mottali fam samam njàng ba suñu borom dimbale ñu ba dañu ñu réer ci lu baree bare daal kooku mooy Xaadim Sarr léegi bi nga bi nga bi nga bi nga jàngee ba pare daal. ak euh, am na beneen beneen beneen activité ndax euh, ñiy dégg sëñ Xaadim Sarr di gis muy des fois mi ngi ci jàng yi mi ngi ci nangam ak nangam ak nangam. waaw daa am loo xam ne moom duñu ko duñu ko du tuddee naan nattu la dañu naan sant yàlla la ndax bu ñu yàlla nattoo bu ñu yàlla euh, tënkoon ci beneen fànn ñu nekk ca ah bu boobaa mën nañu am kersa waaye nag ñun. dañu juddu fekk suñu wajuru góor ak suñu wajuru jigéen yëpp bëgg xa alxuraan lool bëgg xasida lool kër gi tamit di kër xasida ndax néew na ab jàngkatu murit bu nekk ci réew mi te xamu fii ba ñu tuddee ko diiwaan bi mu nekk wàccukaayu jàngkat yu baree baree baree bari suñu tuddee ku mel ni sëñ Moustapha Seck tudd ci ku mel ni sëñ Mor sàmba rek yaakaar naa ni doy na tegtal ñu nit ñu bëgg xas day lool daan ci nab nabi it di ci nab nabi donte suñu tuur àggu ci fenn fi ah sant nañ ci yàlla ndax euh, ku ñu xam ci loolu la ñu xam waaw foofu boobu taxawaay moom am nañ ko ci ba nit ñi wax dëgg yàlla xaw ñu ci bàyyi xel waaw loolu moom suñu taxawaay la boo xam ne ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax. comme daanaka mu mel ni dund nga dund nga xaside yi ndax bi nga waxee jóge nga daara ji fii day day këru xasida mu mel ni ku wax nga ko sànq euh, sëñ Xaadim di ñaan suñu borom gën a yokk ay taxawaayam ay temps ci xabdoo yàgg na lool yo mu am fa am am am ay jàng yu mu bëgg nga taxaw ko ba mu ba mu jël si la fii nga dem taxawu ko ci na mu ko bëggee loolu daanaka am na ñoo xamante ni jàpp day ñuy gis ngay ànd ak jàngkat yi rek ndax jàpp ñu yow ab jàngkat nga waaw ba ngay ba ngay ba ngay ba ngay njëkk a jàng ban ban ban daaj nga mën nga njëkk a jàng sa sa sa sa ci micro wala ci ab daaj daal bu la mu a jàngloo. waaw bi may bi may njëkk a jàng nag. Hmm. sama njàng ñaare ci sikkar la woon. sikkar laa daan def. sikkar si it wax dëgg yàlla ku mel ni ku mel ni suñu jëwriñ sëñ Modou Ngom daañ ci jàppale lu baree bare bare ndax ñaare ci jamono boobu cant yi mu daan dem man ak euh, Cheikh Adama Niang ñoo ko daan sikkar booba jamono waaw ak koñ bi lu fi musaan am ci yëngu ñuy ànd ak Pape Mbaye di yëngu ci côté boobu daal maanaam sikkar daal euh, yàlla dimbali woon nañu ci waaye bi suñu rakk nekkee ñëwee tamit ah wax dëgg yàlla mane ko noo xam ne manewuñu ko noonu ñu bàyyi koog loolu mu woyal ko mu ci jàmbaar loolu di sëñ Ousmane Sarr waaw moom it ak sëñ Cheikh Mbacke ñoom yàlla defee ko façon boo xam ni mënuñu ko noonu ci lañ leen bàyyi nag euh, bañ koo xëcceetu ak ñoom bàyyi leen nga doxal ko. léegi mu mel ni comme comme wax nga dëgg ndax euh, jamonoy cant ya. yaa yaa Adama Niang yéen a ko daan yéen a ko daan sikkar xanaa ñu nga bàyyi nga baaxee gars yi tuuti rek ñu fàttali ko cosaan. donte ab benn trente secondes la. ci daaj janga jamono yooyu ab dina ñëw ci daaj xasida yi waaw xam naa xam naa nag fi mu ne nii. yëkkati bu doon ab madda sax. ab naa si xaadim ngi seetaan mën a barkeelu loolu si ndax ndax dafa am solo ndax ñuy dégg sëñ xaadim te te te te di ko gis nii lu bëree bëri nga wax leen sa jaar jaar tuuti pour ñu xool ndax al ihsaan loolu da ciy da ciy da ciy gën a baax. buri buri laa ilaaha muhammadu rasulillahi ilaha ilala cey borom daaro du mamare ma kenn nga loolu moom bokkoon na ci samay sikkër waaw xam nga lii da ci lii da lii da ciy baax ndax ndax ndax ku la gis daanaka ci ci loolu la la gën a gën a ràññee waaw kuréel mu xadimaatul am daa bi nga xam ni mm. euh, fépp la ci ci réew mi mm. Euh, baanaka ba génn réew mi sax ñuy soppee sëñ Moustapha yi ak euh, ñi ciy yëngu ci xasida yëpp ñoom dañ ma jël aussi tamit euh, toftal ma ci seen kanam man maay seen jëwrin kuréelu kuréelu sëñ Moustapha Seck bi sëñ Moustapha Seck bi ñu gis ni bu comme ku mel ne sëñ Moustapha Seck yàlla yàlla boole leen foo leen foo leen jëm di ànd sa diggante ak moom waa sëñ Moustapha mën naa ni bi mu dalee jàng ba léegi yàlla daf ñu boole ndax guddi gi mu njëkk a jàng moom it man ak moom ñoo ko ànd te booba ba léegi it euh, mën naa ni ëpp na fanweeri at mu mosuñu tàqalikoo sama waajur it ñëw fiddiliwaat boole ñu te loxoom téye sama loxo ni su ngeen àndee day sama xol dina sedd fu ma nekk ëllëg sama xol dina sedd mu boole ñu it muy nit ku baax it moom it jàpp ma jàpp goo xam ni xëy na sax man manqué naa waaye moom dafa matale ndax matale mënul weesu lu mu yëg ci loo xam ni jafe-jafe la ci man baa jaaxle ci man mu taxaw saafara ko ah loolu wax dëgg yàlla dañ koy sant moom it di ko ñaanal yàlla ah li muy liggéeyal Serigne Touba ci xasida yi mu gën koo defee nu mu ko soobee waaye moom kenn la ci man wax dëgg yàlla noonu it laa demee ak sëñ ma sàmba ndax bi may yëngu ci xasida ci ci ci ci ci yëngu tabala bi noonu jamono yooyu noonu sax eh, sëñ Mor Masamba xew loolu booba it ci dëkk bi ba fi mu ne nii ah, sama wayjur dañu ma man de bu ma sañoon da ngay ànd ak sëñ Mor mi ndax Mor day li muy jàng wax dëgg yàlla neex na ma lool su sañoon de dama koy jur waaye comme mënuma koo jur juruma ko nag su ma sañoon sama doom ànd ak moom ju ma jur loolu dinaa ci am xol bu sedd lool loolu moo ma gën a dugal ci xasida yi waaw loolu mooy sama porte ci xasida yi Mhm. comme ni mu ko waxee rek dégg nga ni mu waxee ci jaar-jaaram ci biir euh, nga xam bi tàmbali ci turu yàlla la ko tàmbalee ay rakkam nag euh, gane àdduna yàlla dogal rakkam yi sunu borom xiir leen ci turu yàlla wi muy sëñ Ousmane Sarr di ku yàlla baaxal di koo xamante ni ku am talaa la ci ci turu yàlla wi ku sikaram di di yóbbu nit ñi dimension bu yaatoo yaatu nga xam ne loolu lépp moo leen ci nàmpatal ak rakkam gi Cheikh Cheikh Mbacke nga xam ne fii kër gi day kërug daara kër gi boo boo fi ñëwee rek boo toogee ci biti rek wala nga nga romb ko da gis mu togg ñi nga xamante ni ay nitu daara lan ak ay ay ay nitu nitu xasida loolu sa diggante ñoom ba tax di am. waaw xam nga loolu moom loolu mën na ni cofeel rek goo xam ni ñoom ñoo baax rek am ko ci suñu jëm yi ndax euh, ku mel ni sëriñ Talla moom di sama xarit di sama mag di sama ndijaay daanaka daf may wax ni man doo ma gis fenn fudul ci bërëb bi loolu nag seenu baax rek la. seenu mbaax la ndax ñaare jamono xat na xat goo xam ne sax ñaare ñu ci bari léegi guddi gi la am jot di mën a ñëw fii waaye ñoom ñépp maa ngi leen di nuyu boo duggee ci li mën naa bari lool waaye képp koo xam ne dangay ngay téye micro di wax Asbir Sutóor yi ne ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal yàlla li ngay liggéeyal Serigne Touba yàlla na ci Serigne Touba teg loxo ba nga jariñoo ko ni nga ko bëggee loolu moom ñu ngi koy jaanal bépp jànkat xasaayit ñu ko koy ñaanal am na am na lu sunu borom doxal nga nga nga nga doxal ñoom ci ak ki ay ci ay ci ay ci ay ay jéego ba sunu yaay yu bari nga nga am na benn daayira bu fi formé. daayira waaw daayira Cheikh Abdoulaye Yaqin daayira boobu it liy sabab ba mooy man dama toog fii rek benn guddi ñu woo ma téléphone nii dañoo bëggoon nga ñëw ci réunion bi fële Mbambara. waaw benn mbokk taalibe bu ñuy wax sëñ Moustapha Cissé ak ay xaritam yu baree bari ñu ñëw. ci réunion bi man ak Serigne Saliou maa koy nuyu moom it ñu ñëw toog bi ñëwee toog ñu ni ñun daal dañuy former daayira daayira bi nag daayira Cheikh Ablaye Yaqin la waaye bu ñu sañoon yow sëñ Xaadim yaay doon jëwriñ ji euh, ma ni leen ah waaye loolu bette na di ñu ni ma yow yaay doon jëwriñ ji boobaak léegi it ren la am fukki at ak juróom benn Ah, ñooñu ko sosoon it ñu ci bëree bari tukki nañ nekkatuñ ci dëkk bi mel nu man daanaka mën naa ni maa ci des bi ma ci nekkee ak soxna it am na ñoo xam ni sëy nañ ñii yàlla dogal na jiitu nañu yàlla na yàlla yërëm leen ah, ah, ñooñu laa àndal liggéey bi sos conférence bi di ko di ko doxal ak ñoom ba fi mu ne ni ñu ci bari sax seeni tànk nagam na ci waaye nag comme ñun yàlla daf ñoo nattoo bu ñu sañoon du ñu duggee ci dara dañ ciy am ndam ah moo tax ñu ciy góor góorgóorlu suñu kemtalaay kattan ba boobu ba léegi ñu ngi koy def mais mosul am benn sooxe wax dëgg yàlla loolu nag ñu ngi koy sant yàlla di ko sant Serigne Touba waaye di ko sant it ab Abdoulaye Yakhine waaye di ko sant it dëkkandoo yi ndax ñoom it bis bi saa yu ñëwee ñoom ñëpp dañuy takku jàpp ci fexe ba lépp rafet fexe ba lépp jàkk loolu mooy mooy sababu mbooloo moom keroog sa sa sa papa laay laay saasum bokkoon na ci jotaay booba daanaka bokk na sax ci ñi njëkk a wax ni bu ma sañoon xaadim saar bi mooy nekk président bi loolu mooy loolu mooy indi turu daayira bi nii comme comme comme comme loolu bi ngeen bi ngeen yàlla dogee ngeen di dox daayira bi yéen a ngi def ay daayira ci ci ci ci ci gox yi suñu yaay yi kenn ku ci nekk di ko ayee ngeen ngeen fay jàng di ko boole waxtaan di leen gën a yokk ci ci seen diine di leen gën a yokk ci bëgg gi ni bëgg quartier yi bëgg ko ab Abdoulaye Yakhine mu mel ni yéen a ngi waaj benn bis bu mag. waaw ñi ngi wàcc euh, conférence bi comme ni ma la ko waxee noonu rek comme ni ñu ko daan defee ren dimanche ji ñu dëgmal la muy le 17. Euh, moom la ñu ko moom moom la ko jàpp ren nag mu am changement boo xam ni dañ ko cee amal muy mu gën a am taxawaay ku mel ni Serigne Saliou ture yàlla dogal na fii ci dëkk fi mu liggéey fi liggéey boo xam ni ba bufta bi wal mën naa ne kenn du ko fàtte léegi nag ren moom lañ ciy delloo njukkal ah di ko di ko ci woo ak njabootam ak ku mel ni si Ahmadou Bamba Touré moomu ak sëñ Saliou Mbène ak sëñ Xaadim ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo ci bis boobu donte weeru koor la ah, ñu xam ne rek ñi ngi delloo seen wayjur wu tedd woowu njukkal di ko fàttali ko ci bis boobu ku mel ni Alaaji Pape Thioune doonoon tàggkat yonent bi moom it di kenn ci man doonoon lool jàmbaar ci man doonoon jàmbaar it ci mbooloo mi parce que bari na fu ñu daan jaje foo xam ni moom moo yoroon yëngu bi moom it dañ ko ciy fàttaliku di ko ci ñaanal daanaka ak njabootam sax waxaguma leen ci dara ndax teel gee wax day mu ne da nga ci wut sàkku dara te dañ koo def lépp dañ koo def te yàlla rek tax waaw dañ koo def lu ci ne dañ koo def te yàlla tax mais du benn njabootam boo xam ne fi mu ne nii yëg na ni jox nañ ko ci waay boobu waaw. mu mel mu mel ni conférence bi yàgg naa am at. am fukki at ak ak juróom-benn 16 ans. ren lay am fukki at ak juróom-benn waaw am waaw. sàn mu mel ni mu mel ni waa waa waa quartier bi ak taxawaayu conférence bi nii ku ku ci bëggoon am ay leeral ak yooyu noonu taxawaayu conférence bi daal. waaw euh, comme taxawaayu conférence bi dañu bëgg bu ñu xëyee dinañu jàng alxuraan ñaanal ko suñu way deewlu yooyu ak soxna yi ci nekkoon ku ci mel ni soxna Mbène Diop euh, Mbayang Diop Mbayang Diop doonoon ci jàmbaar lool ak soxna Maguette Gueye doonoon soxna su Modou Diop moom it jiitu. ñooñu ñëpp it fas nañ ci mm. euh, ñaanal leen ci ndax ñoom it dañoo nekkoon jàmbaar lool ci mbooloo mi suñu jàngaleen alxuraan ba pare nag bu midi jotee fas nañu yàlla tàmbali liggéey bi mm. euh, waxtaan wi sëriñ Ngañ Mbuub ak mm. waa sëñ ak sëñ Abdoulaye Thiam ak euh, sëriñ Jibril Mbeng ñooñu ñooy def waxtaan wi jànkatu xasida yi nag moom xam nga fii moom bërëbu jànkat yëpp la moom moom xëy na du ñàkk ñu tudd ci ay jànkat ku mel ni sëñ Moustapha ak sëñ Moor ak sëñ Ousmane ak yooyu waaye jànkat yi yëpp ñoo moom bis bi parce que xaadim moom xaadim ñëpp la waaw xaadim moom ñëpp la waaw waa waa kër sëñ Abdoulaye yit maire it ñoom ñu fonk ñu fonk ñu fonk daayira bi lool ñoom ñoom ñu am ay taxawaay ku mel ni soxna xaar si la ak soxna nday ami ñoom soxna buri ñoom ñëpp soxna njoogu mbub soxna euh, Nogoy Caam soxna ami seen ñoom ñëpp jàmbaar lañ ci loolu même soxna mami mi ñi ci kër gi ñëpp wax dëgg yàlla bu bis bi ñëwee ñoom ñëpp dañuy takku fexe fexe lépp rafet ñoom it maa ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla waaye kër gi nag kër Daaru Xudoos la fii kër sëñ Seex Mbàkke la ndax sama wajur li ma la wax léegi ci njëlbéen rek ni la loo ko musa wax te musoo ko waxoo ko sëñ Seex rek moom pour moom waxoo dara moo tax jox nañ ci waaye wilaaye tamit wàccuwaay bu kawee kawe ku mel ni Serigne Moustapha Dieye ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko teg ci loxoom ni yëgal ñu waa wilaya yëpp xamal leen ni bis bi seen bis la. waa daayira mooy bu naafi nga xam ni Serigne Ndiaga juuf mooy mooy jëwrin ji ak sëñ Fallou Ndiaye ñoom it ñu ngi leen ciy woo ndax sëñ Ndiaga moom it ku am taxawaay la ci dëkk bi ah bi mu yoree daayira beeg léegi wax dëgg yàlla ñun ñëpp gis nañ ci suñu bopp. ndax ñëpp la uuf di leen jàppale ci bépp fànn kon moom it yàlla yàlla gën ko dëgëral ba ay ndamam ci daayira bi gën a bari waaw ñu ngi ciy woo ñëpp daal wax daal bis la boo xam ne daal bisu jullit ñëpp la rawatina waa Kër si Ablaye Yaqin. mu mel ni bu mel ni am na waxtu bi tàmbali mais am na waxtu wax ne bu fa àggee fa la liggéey boobu war a mën a yem. waaw damay bëgg sax ren ku ñëw rek xaar ndogu ndax fas naa yéene defar ay xéewal fii yoo xam ni ñëpp dinañ ci waaw ñu mën a toog waaw ñu ñu ñu xéewal ñu xéewlu ba pare soog a dem ndax ñi sant caam xam nga fii dafa bari ñu sant caam koñ bi ñëpp ñoom mbay caam ak ñëpp fii bu ñu sañoon ñëpp dañuy ndogu ba pare soog soog a dem seeni kër loolu daal moom moom la ñuy sàkku